leeru jamono mi nga xamante ne tey ji nag dafa daal di bind ci xëtëm wàllub élection présidentielle 2024 di ñu xamal ne sax ni jamono ci am na ci ay way politique yi nga xamante ne wane nañu seen bopp ngir rek ni ñoom ñi lee dañuy bokk ci élection présidentielle bi di ñëw euh, ba tax na ba tax na sax yéenekaay bi euh, jot na ci lim kii di Abdourahmane Diouf Ousmane Sonko Diallo bu tekki Thierno Alassane euh, Sall Euh, le quotidien quotidien tamit daal di bind ci xëtëm euh, procédure euh, procédure urgence bu rabat d'arrêt cour suprême nag jot na rejeté requête kii di Ousmane Sonko. Euh, le soleil nag euh, daal di euh, addu ci dégradation climatique COP 28 bi nga xamante ni sax jamono ji ñu ngi koy amal njiital réew mi Macky Sall nag jot na artu askanu jot na artu jot na artu ñëpp ñëpp daal di taxaw tem ci wàllub énergétique laas tamit daal di bind ci vingt 28 ba nga xamante ni sax ñu ngi koy amal foofee ca euh, Dubaï Macky Sall nag fësal na boppam bu euh, baax a baax bu ñu ci euh, yéenekaay bi di laas. l'info nag daal di wax ci wàllub surfacturation marché yi nga xamante ne sax day am ci ministère bi ñu dénk lépp lu ñeel wàllub weegu yaram kii di Marie Khemesse Ngom wax na ci xalaatam. Euh, Sud Quotidien tamit daal di addu ci adoption loi finance 2024 euh, nag noonu sax ca assemblée nationale ab censure jot na am ba tax na sax yéenekaay bi nag euh, di ñu wax taxawaayu nguurug Sénégal ci mbir moomulee Euh, Dakar Dakar Times tamit daal di wax ci budget 2024 ngir rek mun a gunge askan wi euh, état nag mi ngi fësal boppam ngir rek wone ni mi ngi aar askanu Sénégal. le 24 heures nag euh, daal di fësal ci xëtam ni kii di Aminata Touré nag euh, euh, congu na le soleil rek daal di ko yóbbu ci kanam wala sax ci yoon ndaxte moom mi ngi ñaawlu bu baax a baax xët ba nga xamante ne moom la soleil daal di fësal ni kii bés yi génn ci lu ñeel parrainage kii di Amadou Ba te nekk sax candidat coalition Benno Bokk Yaakaar

Euh, source a tamit euh, daal di wax ci wàllub immigration irrégulière euh, baax ñi nag ba jamono ji am na ñi nga xamante ne ñi ngi am lu leen métti gannaaw rek jot nañu génne seeni xaalis ngir rek mun a dem ca réew tugal yi waaye mujjëw ñu am lu ñu bëgg waaye tamit seeni njabootu ñu ngi ci ab naqar dañuy desani ba tey ci source a mi nga xamante ne jot na addu ci procès kii di oustaz Oumar mi nga xamante ne sax mujj nañ ko dàkkanti euh, ba juróom-ñetti fànn ci de décembre euh, bi ñu nekk. stade nag euh, foofu mu daal di bind ci xëtam euh, ni Barça nag euh, dana jouer ak Atlético Napoli dana jouer ak Inter Leverkusen dana jouer ak Dortmund tagg wàllub làmb nag suñu làmb duñu xamal ne sax ni kii di rëg-rëg nag daal dina wone boppam rek di moom bu sëgee bëre ak kii di Bombardier